ki la gën a woyof nag mooy ki la gën ndax boo seetee asalul masaalik bi muy lim ñi gën fa yàlla bu ñu tuddee ñi gën ñi leer ñëpp ba noppi def cee teg ne ak ku gën a rafet jikko rek ci nit ñi jikko ji rafet mooy lan waaye fa ca jiitu ñàkk rëy moo yées ci jàngooy xol yi gannaaw kañaan bu rëy dañee ak ñaanu daj woyof dugg yéene ñëpp jàmm dal di dugg ñiy defaree te mën a defar yooyu lay njëkk a dindi ci nit suñ may jaxat ci wax ne murit dëgg bul mer te bul jàpp mer mer ak jàpp mer day alak ab murit meral say ayib te gëm te daw ay nemmatam da am say murit di lim di koy murit ba àgg ci mujj mu ne duyal naa la ndab laa ngi nii soo yenoo te tuuroo ko am barke am ay murit àgg ci yàlla mënu la am mukk ci xol bu rëy nekk wala añaan nekk ca gannaaw loolu ki àgg ci yàlla lu mbindeef am rek daf ko ko lu jullit am donte amu ko yéene na ko te bég na ci mel ne bu ko amoon moom ci boppam loolu mooy ak defaru ki mën nag ak defaru leen njëkk a fàggul lépp ba indi barke dañ koy waa ngi tàmbalee ci felag rëy gi dindi rëy mooy bu nuyu sa moroom sax ak na mën a mel ngay daal di wàcc sa bopp su jot wane ne rek nit ki yaa ma gën maa la gën moom baat bu rafle la yaa ma gën mooy baat bu woddu maa la gën jaam la yaa ma gën mooy sang bi mooy sang sidna Abubakar waxtaane naa ko ay yoon daan wax buñ ko taggee ni sëñ Sadio muy def léegi ne allahuma anta alam bi min nafsi wa ana alam bi nafsi minhum allahuma jaalni xayran mimma li ma laa ya'lamuun wa laa tuwaxini bima ma gën a xam sama bopp waaye man ñii di ma tagg maa leen gën a xam sama bopp waaye yàlla nag ma def ma gën ni ñu ma jortoo te nga jéggal ma li ñu xamul ci man te bu ma jàppee li ñuy wax foofu la wàcce sa bopp mën a yem foofu la xam sa bopp mën a yem foofu la xam yàlla itam mën a yem mu boole ci nag tumuranke ci àdduna tumuranke mooy koo bokkalul yoon rek mënu leen a ànd niroowu leen bokku leen jikko bokku leen dara amu leen juboo